wa Cheikh Ahmadu Tijaan ma yanta woor na cëre mbokk yu dajee ci wàllu yàlla kenn ku nekk sa ruux day ñàkk ruuxu morom mi bu yëgee ak bu yëgul moo jullit yi dajee dafa am solo lool rawatina ak ay mbokki tijaan moo tax soo demee ci muneetul murid bu ci njëkk liggéey ci fiqu tariqat yi ndax su dee jawaahirul maani andi na fiqu tariqati waaye daf ko gumbëstal teqale ko dajalewu ko ci benn bërëb day jël ay masala wax ci fiqu tariqa bi ne sharia fiq la tariqa bi fiq ñàkk a jàng fiqu tariqa nag dana indi lëndëj yu bëri ci biir wax ci yàlla lu baaba radiyallahu taala anhu baayam mooy baabu dafa jeexoon ci Seydi Ahmed Tidiane lool radiyallahu taala anhu ba tuddee ko ñetti doom benn doom bi ñu ko wax Tidiane moom Tidiane nu baabu bi liggéey mu neetul muy ginnaaw ñoom ñëpp ñoo bokk pour faaw ñu jéem leen xàmme kenn ki ñu koy wax Cheikh Fall ndax ñu xàmme ko Tidiane ibnu Baba kenn ki ñu koy wax Ahmed Fall ndax mu bañ a jaawal ak yeneen ñaari mbokk mi mbokkal turandoo baayam sëñ si Ahmed Tidiane moo may wér waaye moom ci boppam nag bi mu jógee gànnaar ngir dem seeti sëñ si Ahmed Tidiane ngir mu may ko wér ak mu am xam-xam yi mu fa taataanee ba mu jógee di dem Fass ci yoon mi la Cheikh génn àddina moo tax moom gisul sëñ si Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu te waxal na ko kon Ibnu Arabi Saay bi mu saraxaaloo téeréem bi ndax moom Tijaan na baaba dafa wax ci boppu téere ba lépp loo gis ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane naa ko layal ci yaxi alquran mën naa ko layal ci yaxu xadis waaye kon nag téere bi way naa ko def du ma mën a indi aay ak xadis yi ndax kon day gudd ba ci la wax ne law la maxaafati li tatbili la jiitu lil mazkuri bi dalili su ma bañuloon téere bi gudd lépp lu ma wax ci tariqa bi dana indi dalil bi fu ñu ko teg dalil ci lislaam nag ñeent dong la alquran xadis ijma qiyaasul jëliyu ndax qiyaas ñaar la dafa qiyaasul jëliyu am al qiyaasul xafiyu bi nga xamee ne nag xam na ne téere bi mënu ci indi dalil yi ci la sant arab ibn ne nag ma saral téere bi ndax wax na ci yax bi ne ërjoo minal muhaymini yaakaar naa ci yàlla miy fuglu waa koon bi ne dana ma may am ku ñëw sarxaa sama téere bi ndax moom ci borom kashfu yi la bokkoon su waxee ne yaakaar naa rek mooy leer na ko boo demee ci bopp jooyal maa ngi Cheikh Ali Harazim Barada radiyallahu taala anhu nee bokkoon na ci nëbbatu seen Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bu xamee dara bu te ñëwagul bu koy wax day wax ne ah man de am na lu dox ci sama xol wax naa ko waaye bu xaaj mukk ne nangam dana am na waaye na mu ko waxee ne foog naa ne nangam dana am wala dafa mel ni am na lu dox sama xol nangam nee na balaa yàgg rek nga teg ci sa moom itam ba mu junjee ci téeréem mi ne yaakaar naa ne yàlla dana ma tàggatal ku ñëw sarxaa sama téere bi te bis bu ko saraaxee lu nekk dana wax fan laa ko teg ci la ko yàlla booleeg arab ibnu saih boobu nekk ca rabaat ñuy wax ne mooy baabu cheikh ndax balaa kenn dem faas boo wàccee danga koy romb moom nag ca sharxa ba lay indee lu nekk mu wax ban aaya nañ ko teg wala ban xadis ca biir ibnu baaba nag la ma taxoon a jóg ba tax ma tudd ko mooy dafa wax ne aayul mbokki taalibi tijaan yi daje ziyaarante xam nga ci tarixa bi dañu tere nga ziyaara beneen wëli bu bokkul ci tarixa bi loolu mooy baat bi gaa yi gën a bañ ci àddina nag ñaawal leen ko ñaawal bu nekk naan tarixa bi dafa teqale jullit yi tarixa bi dafa def lii mu mel ni ñoom baatu ziyaara xamuñu lu muy firi ziyaara amul fenn fu yonent bi wax wala alquran wax ne ziyaara sa mbokku jullit farata ndax bu ko waxoon kon dañu ñu dugal ci loo xam ne du mën a nekk ndax bari na ku nekk jullit te xamuloo ko sax waxuma ak di ko ziyaara xam nga amul fa yàlla digle nga ziar jullit yëpp li yàlla wax mooy nga bëgg jullit yëpp waaye waxul nga ziar jullit yëpp ndax loolu mënul nekk soo demee ci uso loolu da ngay dugg ci tekliifu maa laa yu taaxu togg nit loo xam ne attanu ko te loolu alquran moo yaxal ne mënul yàlla du ko def laa yukallifu laahu nafsan illa wusaha yàlla du togg jaamu mukk lu mu attanul waaye xam nga toujours seytaane bu bëggee yàq dara day ñaawal baat ya lenn cheikh wax kañ lu ko gën a leer ci kaw suuf amul booy jàng lettre Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yi daf lay wax ne na nga fonk jullit yëpp bëgg leen màggal leen loolu jotewul ak baatu ziyaara dara baatu ziyaara arab la ci arab zaara mooy firi nemmeeku ci wolof di firi visite ci tubaab visite élève tubaab yi bu ñu déggee ni usine li njaan am na ngay dégg usine ba ci xamoo lu nekk ci biir usine ba soo ko defee sa maître ànd ak yow ngeen dem ci usine Lindiane ña fay liggéey wan leen machine yi nañuy dawee ngeen xam nañuy segalee gerte ga li ma leen di wax ni mu ko dund bi ñuy nekk lycée dañ ñu yóbbu ba usine Lindiane jàngal ñu ko bi ñu yóbboo ñu wan ñu diwlin bi fi muy jaar ba machine bi tapp kayit bi bind ni diwlin ni Lindiane loolu mooy nemmeeku moo tax sëñ Malick Guèye daan wax ne képp koo xam ne mënoo ziyaara sa bopp mënuloo ziyaar keneen ziyaara waliyu moo ko mën a def te comme tariqa tijaan nag taalibe yëpp ay waliyu ne sëñ aadi nee te xam ngeen ne yoon wi ñëpp ay waliyu fa shukran li mawlaaya muuli ni am moo tax taalibe tijaan ñu sant ko mooy muy ziyaara ziyaara nag ki nga koy def day fekk yéen ñaar ngeen mbokk ay mbir boo bokkul ak nit mbir boo ko ziyaara da am problème loolu neex na firi ci àddina soccu dañu tere nga bokk soccu ak nit ak lu mu la ñage-ñage pat dentifrice brosse dentifrice yi boo ko bokkee nit dangay am li ñuy wax pat sa sii ñi day néewi ndax nit ku nekk am nga microbe dafa am microbe yu lay tëral feebar loola ak microbe yoo xam ne dañ lay jariñ ñoom dañ lay defaasaw comme bokkul ko nit ki nag lu ngeen bokk bokk ndey ak baay bu ngeen bokkee benn brosse à dents wala ngeen bokk benn bant soccu mu am lu feeñ sa yaram lu ci bokkul lii rek la Seydi Cheikh Ahmad Tidiane wax ne Cheikh bu fekkoon ne day ànd jullit yi doo dem ci kashful xijaab fekk jigéen bu ñuy wax laal la borom kashfu la te bokkul ci tariqa bi Cheikh dafa daan yebal taalibi yi di ko laaj ay mbir soo demee ci chartu tariqa bi dañ la wax ne arab na ngay dogoog benn mbindeef waxul sax jullit ndax mbindeefu yàlla yi yàlla dafa feeñ ci ñoom yàlla lu mu nekkul loolu du taxaw yooyu mooy xamal ne kon gars yi ñoo bëgg ñaawal waxu seen Cheikh Ahmed Tidiane bi waaye wax bi Cheikh Hadj Malick nee na ci Imaamul Munkir du tariqa bi rek moom mos a wax ne taalibe du ziar ku mbokkalul tariqa ndax fii ci àddina soo jógee dakaar dem kaw la boo jaxasee ñaari ndox yi boo see soj wala balaa ngaa ñibbi ñibbisi soj moo tax ibnu arabi alxaatimi radiallahu taala anhu mi nga xam ne boo demee ci jaaril maadi foo fekk cheikhul akbar ak ibnu arabi alxaatimi leen di wax ndax cheikh nee na bu ma jàllee mook cheikh abdul qadir jilaani amul waliyu bu leen gën a xam yàlla na kama la yakunu al aalamu bayna ilahayni wala takunu al mar'atu bayna zawjayni wala yakunu sayfu bayna ghimdayni wala yakunu al alimu bayna ilaayni la yakunu al muridu bayna cheikhayni ni nga xamee ne addina bi mënul am ñaari yàlla ndax yàlla wax na ci alquran law kaana fiihimaa aalihatun illa allaahu la fasadataa addina su amoon beneen yàlla bu dul yàlla mii ñu xam nee na addina yàqu ndax lan ñaari yàlla xel nanguwu ko ndax ñaar ñaar yoo gis rek mënuñu yem ñaar yoo gis rek ñaari nit yu yem amul même ñaari poti dàll yi ñoo yem pointure mais bii ndeyjoor la bi càmmoñ la kon wutee ñëw la su ñaari yàlla mënoon a am ba am bu amee lu ñu yilif mu yàqu ndax yàlla bii su ne woon bëgg naa tey nangam am beneen bi ne bëgguma loolu am bu ñu xëccoo bu ñu geeree ñoom ñaar àddina tukki ndax ñoom ñooy contre contrôler àddina te bu ñu geeree du ñu tala a contrôlé àddina moo tax ba yonent yàlla Moussa ala nabiyina wa alayhi wa xeeti wa afdalu wa salaam laajee yàlla kon ne ko yàlla lu tax amuloo doom yàlla dénk ko ñaari lu tax doo nelaw yàlla dénk ko ñaari nen yonent yàlla Moussa yóbbu nen yi di ko nëbbu benn doom bi gis ko jooy ci mu may ko beneen bi gis ko jooy ci mu may ko ba mu amee teg rendez yàlla ndax suñu xaaj yi nee na yonent yàlla Moussa wax na yàlla junne yoon bu mu delsee ci yàlla di wax ak moom yàlla ne ko ana sama nen yi mu nettali ko li xew mu ne ko looloo tax aw ma doom yàlla xam nga bu amoon doom mu xëy ne ko may mu si maar d'Italie walla buur boobu nekkoon ci siin te bi mu dee bàmmeel bi sax kaan yi wut salmoor doom ji léeg-léeg mu ne ko papa mu ne mu ko sikki mu góor gële laa soxla jooy fokk ñu xuuf ko te dañuy daggaale der bi mu ne nag muy nàcc bi nga xamee ne loolu mënul lekk yàlla kadaalika moo tax yàlla monde bi du nekk ci diggante ñaari yàlla jigéen it mënul am ñaari jëkkër mën na fóotal waa kër gi yëpp mën na toggal waa kër gi yëpp waaye bu dara desul nag lu dul lal ba nag loolu moom mënu ko bokk ak keneen su ko defee du am njariñ gis ngeen jigéen ñi jaay seen bopp du ñu ëmb mukk boo séyee ak góor beneen góor ñëw séyee ak yow ndox bu mujj bi su ñëwee dafay yàq ndox mu njëkk mi yàlla moom lu mu la tere rek yow lay gaañ moom yoonam nekku ci noonu mu amee ci àddina la amee ci baatin soo amee ñaari sëriñ sëriñ bii def ci yow pareegul keneen ñëw def ci yow kooku day yàq li kii doon def ba ci wàllu médecine boo demee léeg-léeg docteur ne la bu ma lay defal traitement fan yi bul jël garabu keneen ba ma noppi ci yow waaw gars yi nangu ko ci ñu bañal ko Seydi Cheikh Ahmed Tidiane kon kañ nga xam ne xol yi moo lënd ñàkk jàng fiqu tariqati yonent bi sallallahu la wa sallam dafa am bi Seydina Omar nee na ma nekk Madina labbe yi werante ak man ci diine ma dem ci seen kàggu yi ñu am kayit wi ñu ma fa abalee nee na ma yéemu ca ñëw di wax ak yonent bi mu mere ma génn ci man ne ma damay nekk ci seen biir alquran de wàcc ci seen kaw ngeen di soxla beneen téere xanaa kon gëmu leen ne kaamil bi kaamil la tudd kaamil mooy firi lu mat su matee lu mat genn du ko ñàmbaas mu ne ko xamuloo ne yont yàlla Moussa ni muy nekk nekk yonent su fekkee woon sama jamono du mën lu dul topp moom kon xam nga yonent ba nga koy tere yont yàlla Moussa ak li muy nekk nekk yonent mu ne ko yonent yàlla Isa bu doon dund ak li muy nekk nekk yonent mënu lu dul topp ma nan ngeen di amee chance bu toll ni yàlla boole ma ak yéen ngeen di soxlaati leneen kon xam nga Cheikh lépp lu mu def am na fu mu ko teg maa dama demee ci muniyatul murid nee na wa kaana fi dalika laay jaaraa Cheikh moom kuy jaay sunna ba ak ci Cheikh teeral ko kenn du rawanteeg moom ci ci boobu lef ndax moom ñaari wéy juróom yépp ay borom xam-xam neen nekk ay wëliyu ñaari wéy juróom yëpp ay shérif neen ndey ak baay ñu yar ko yar boo xam ne néew na kuñ ko yar seen buntu kër dañ ko leen tëj cheikh bu génnee dafa dem daara ja waaye mosul xam lu medd mi riir judd na ba nekk mu kàllaf xamul luy bidaa ndax seen kër sunna doo nga fay dox xam nga boo demee ci xadiis yonent bi dafa wax ne sa doom bu góor bu amee fukki at ak juróom benn nee na na nga ko wutal soxna waaw xam nga kon ñi nga arrêté bàyyi si Cheikh Ahmed Tidiane ci fonkam sunna bi Cheikh amee fukki at ak juróom moom dafa anticipé fa la ko may soxla ndax li tubaab di wax débauche mooy nit ku dérapé sànku topp jigéen ñi li koy sabab xam nga nit lu mu xam du ko jaral dara du ko jaral mooy yàlla su fekkee attaay am na seen kër doo xaarandi attaay feneen bu ceeb amee seen kër doo xaarandi boo teelee am jabar it hakala moo tax Cheikh mosul xam lu nu róow moo tax ñun ñi xam li mu nekki woon bu ñu gisee ku ñuy jaay sunna <laughs> dañu xam ne yow jaayil nga ndax koo gis muy contre Cheikh xamal ne ferul ijj lu mu bari bëri ay tiire nag waaw mos a nekk ci waaw nekk fi ma dal mooy siège u te man xaw ma ci dara ndax sama njaaji gi mooy rakki ki fatkaay xam nga man ni ma xiree rek ma daal ne eh ku gis mu nekk yi waatu di jàngu ma ngi toog te ne ma ah yow sa waay nga lu garaaw ah. ne ko noonu waaw garaawul de ah mu ne ma yow da xam ibaadu rahmaan yëpp ma ne ko soxla ma xam jëm ko ma ne ko bopp yi naa xam ma xam ne bopp yi comme jànguñu ku leen nangoo topp yow it jànguloo mu ne yow yaa wax loolu ma ne maa wax loolu mu ne bu subaa daañu la boole ponkal yi ma ne ko d'accord su boobu nag ba ñu toogee ba tisbaar di waaj a jot li ci des juróom minute la ma jàpp wuti jàkka jëf bi may waaj bi may waaj a génn la gars yi agsi mu ñuy wax tafsir tafsir kasama seen pànk yi gën a garaaw la bokk ndax dafa jàngi woon fiq mbos te ñoom fiq leen gën a tële ci àddina moo tax moom rek leen gëm ndax moo leen di dimbale ci wàllu googu moom xam naa ko lu yàgg te moom xam ko mi ngi ànd ku ñuy wax Tahiru Fall ñu ne ma yaa ngi nii ma ne ñu ne ponkal ma ne ma julli ji te ñëw juróomi bi ma julli jee ñëw ñu commencé ah, ñu ne sa waay yow yaa waxoon ne Ibaadu Rahmaan yaa ngi nii nag ngeen war a waxtaan ma ne ma bismillah balaa ñor tàmbale waxtaan bi nag dama leen di laaj fu ngeen jullee ñoom ñu xoolante xam nga ibaad yi dañuy jaay ne ñoom dañu topp sunna ci jàkk ji leen di jullee te keroog jullee wuñ ci jàkk ñu xoolante ma ne ngeen rikk na ngeen mos a xeet yéen a wax ne sunna ngeen di topp ma ne ko xam naa ne bu leen jàkk ji ndax man fi laa leen batt dama àgg fekk waa jàkk ji kàbbar bi ñu ma maa njëkk jóg fekkaat leen ci kër gi ñu xoolante ñu naan neexul ba neexul waa ji yeey kon d'accord ah, ngeen ne sunna si ngeen di woote bu dëgg ci yéen waaw si ngay dégg yëpp jàkka ju ñu yilif rek neen fonk rek mm-hmm. wala jàkka ju ñuy wut place waaye fu dem te kenn xamu leen fa foofa mën naa am ñu toog fa ñetti fan duñu dem jàkk ma ne sama waa ji nag yaw xam nga kan moo andi Ibaadu Rahmaan Sénégal mu ne tekk ma ne ko waaw yow yaa ngi ñu bokk ci mbir te nekk xamuloo ci dara man mi ci bokkul maa la ko gën a xam ma ne ko ku ñuy wax Alioune Guèye bu Thiénaba moo njëkk a indi Ibadou Rahman fii ci Sénégal UCM bii ngeen di gis moo toj bi ñu xulóoyee ñu tas ñaari parti ñenn ñi dem sos Ibadou Rahman ndax xëccoo njiit jamono bu ne nga dégg ku bàyyi ci ñoom ci kilifa yi ndax xëccoo njiit Seydi Xaali Lo moo ci mujj xam ngeen moom góor gi taal loo mu xaddamu si ay bu mag boobu mooy baayam tuddee ko Cheikh Mouhamadul Xaali sëriñu Cheikh Omar te dem na ba bëgguñu tur nit ñi xam ndax am Abdoul Khari nañ ko tuddee wala dégg gaa yi naan di loo rek <laughs> te ku ci nekk kat bu ñu la waxee li tax ñu dàq ko alal rek lay doon mu mën na leen waaw wa waxase aadamu rabbahu fa xawee nu ngeen ko firéew ah waa ji ne maam aadama may na yàlla beew ma a ko génn nga ci lislaam xanaa boo jàngoon ibnu ashir rek xam ne ab yonente mënul mooy yàlla mm-hmm. ab yonente mënul def sax lu ñu sib ndax yàlla wax ci alquran wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi isni mosuma yónni benn yonent lu dul dama bëgg ngeen topp ko ci sama ndigal ah, te yàlla ku mu wax ne neen ko topp li muy firi mooy kooku du def lu ñu sib ndax lu ñu sib yàlla topp loowu la su fekkoon ne ab yonent mën na déraper kon mooy yàlla may nañu ñu ni tam ñu déraper ñu xoolante xam ne loolu waxu tawhid la nit gàtt gàtt loolu xam nga ne balaa nga nekk jullit faaw nga gëm ne ab yonent mënul def lu ñu sib yàlla tere ak yi dem lu xaraam ñu ne leneen lu muy firi man leen da ngeen di ne xamu leen dara li ngeen doon bañ parce que fii bañ xam ñoo fi gën a rëy nag nit ku amul sëriñ foog nga rëy boo gisee nit ñi wut tariqa mooy ku amul sëriñ mboolem jikko yi alquran di bañ dana daje ci ndax li la tere am sëriñ sax ci rëy la bokk ndax boo gëmoon ne am na ku a gën kañ war nga jokk ci moom soo gënee nag soo gëmee ne kenn gënu la fa la cànkute yow sëñ daa wax ne ne waa ahlu tasawuf yëpp d'accord nañ ne man zanna annahu xayrun min al kalbi fal kalbu xayrun minhu ku jort rek waxum ku ko jortee rek ne yaa gën xaj xajala gën ma ne ko kon xam kenn feeru leen neen bàyyi aaya boobu laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al zalimina lu muy firi ñu ne nii naka man kuntu bokkoon naa mi ne zaalimiina ci tooñkat yi man xanaa du yonent yàlla Yunusa ngeen di wax ñu ne zaalimiina bu firiwul tooñ li muy firi man leen amu leen sëriñ moo tax dangeen ko mën dégg moo tax alquran jàng arab vocabulaire bi du tax nga firi ko moo tax yonent bi ne man fassara alquran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan naar ñu tiitiital ne ma ma ne ma da ngeen di wax ne xam ne ma soog a firi ñu yàgg fa lool ñu ne waaw quand même ko wax rek mu firi ko ma ne ah naan <laughs> li ngeen doon bañ maa ne woon ku dara bu nekk Ibaadu Rahmaan ñu nangu ñu ne waaw léegi firi ma ne inni naka man kuntu bokkoon naa minal minal zaalimiin ci xutbu zamaan yi ñu xoolante ne zaalimiin buy firi xutbu zamaan ma ne leen waaw Seydi Si Ahmed Tijaani moo ko firi radiyallaahu taala anhu xataa soo demee ci mu ne mu nekk ayatin fassarahaa bi maa qasara nushuu man taqaddama ñëpp bari na aaya alquran moo xam ne cheikh firi na ko piri moo xam ne ña ko jiitu woon mosuñ ko mën a firi noonu gis nga Seex Ahmad Tijaan yi yonent yee ko gën saxaaba yee ko gën waaye wax na ci làmmiñam ne am naa xam-xam yoo xam ne ku dul sama xamuloo waaw waxuñu ne moo gën moo leen gën de laa tabtadi maziyatun afdaliyatan wa qad yujadu fil mafduli xayru maziyati nit dañ ko dañ ko gën ba nopp mu am jagle boo amul mm-hmm. loolu la loolu moo dal loolu moo tax waxaat na feneen ne bu ñu demee bis penc àjjana bu benn yonente amee benn apartement man dana am ñeent fukki appartement boo dajee ku déggul nag day daal di wax ne voilà gars yi nee neen Cheikh moo tiim yonent yi waxul lool Cheikh moom lu mu wax temple mi ngi mel ni rek yow nga am oto yonent bi amuloon oto xam nga du tax nga gën yonent bi xam-xam yàlla moo ko ci jagleel loo xam ne ku dul sayyidul wujud xamuloo moo tax ba muy firi inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilna wa ashfaqna minha wa xamalaha linsaanu sara alquran yëpp dañu daan yër leen yi da ngay dem benn sara mu ne julli leen wax li lay ne waxuñu julli mooy jinne yi dañuy julli te yàlla lii mu wax nee na amaana kóllëre bi ma joxe wa xamalaha linsaanu doomu aadama dong moo ko kon xam nga du prix mi firiwul lool léegi xam ne Cheikh raw ñu nga dem ñenn ñi naan charia bi neen di wax jinne charia war na ko prix yiñ ko fii yëpp boo demee ci biir aay bi da ngay weddiwaat sa bopp ndax doo ko mën a jagleel doomu aadama Cheikh ne inna aradna lamanata amaana googu alqurbaniyata al uzma lay firi loolu rek la doomu aadama jagoo malaaka li muy sell sell du nekk xut bu jabar jinne lu mu baax baax baax mën na dem ba bokk ci ëllu diwaan waaye du nekk xut bu jabar kon xam ngeen ne si yàlla yi mu fi récupéré mu ne xutbaaniyatul usma boobu la yàlla gaaral asamaan ak suuf ak doj yi ñu ne ñoom ñemewuñu affaire xutbaaniyatul usma ndax xutbaaniyatul usma loolu du melaw mbindeef boo gisee du mën a jubóor ñi xamul wilaaya mooy boo nekkee xut waxuma la xutbaani sax waaye wilaaya boo ca xasee laal rek yàlla dafay wàlli si ci yow nga mën loo xam ne mbindeef simple waru ko man te loolu xadiisul qudsi ba moo ko wax yàlla moo wax ne li gën ci li jaam di ma jagee mooy muy def li ma farataal ci moom waaye farata kese kese du yóbbu nit ci yàlla nee na fokk nag mu boole ci ay naafila wala yaza wala yazaalu yataqarabu l abdu ilayya bin nawaafili loolu moo andi tariqa yi nee na ci lay dem ba xata kuntuhu ba ma mujj nekk di jëmmi jaam bi man yàlla am na riwaay yooyu nee na kuntu sam'u lati yasma'u lati bi biha ma mujj nekk noppom bi muy déggee bu dee cëri doomu aadama lépp lu nekk ñaar dañu koy jigéenal moo tax ma ne sam'u lati yasma'u biha nopp ñaar la moo tax al aynu bët ñaar la dañu koy jigéenal ci arab gémmiñ mi nekk benn dañu koy góoral yàlla wax ne mu mujj nekk tànk waaji loolu moo tax boo ca àggee da ngay mujj nekk beneen doomu aadama ndax xutbu buñ la bëggoon expliquer lan mooy xutbu soo ci xamul dara dana jafe nga gëm ko moo tax nit yàlla yi ne tasdiqu bil wilayati wilayatu koo dégg mu gëm waxi nit yàlla yi rek xamal ne wëliw la booy boobu mën ko bañ a firi nag ndax boo nekkuloon wëliw doo nangu ne wax ji am na xam nga boo xut bu toogee ba mu neex ko mu ne melentaan ba nekk màkk maa ngi dégg tànkaw te mu yow mu wóor la ne yow li ci sa biir kër mënuloo ko dégg te yow sa xol bi dafa tilim ba mënuloo gëm ni nit mën na la gën yow jàpp nga fi nga yem fi la ñëpp yem doo ko mën dégg te boo ko mënta dégg doo gëm yàlla ndax yonent bi foog nga weddi ko ndax moo ne yàllaa waxal boppam ne danaa mujj nekk nopp waaye jooju nekk wëliyu am na góor bu ñuy wax daaw de seen ci kaw la dafa sikkaree xëy yàqu yum ba fu ñu noddee ci addina bi mu dégg waxuma te àggul ci xutbaan yooyu xut bu jamono fu yàlla nekk yàlla moo fa nekk représentant fan la yàlla nekkul moo tax xut bu jëmmam day am ñetti téeméeri jëmm ak juróom-benn fukk jëmm principal bi yilif màkka lay nekk ak moom fu mën a dëkk nag moom moo tax nga gis ci munitul murid ñu ne la cheikh bi muy jëli xutbaaniye bi cheikh ali harazim barada mi àndoon ak moom fekke ko nee na Cheikh ñetti jéego la ko def aw mag moo tax ñu bëri dañ la woon loolu mënul nekk ndax guddi gi ñu wax ne Cheikh jëli na xutbaani bi guddi gi faas la ko def قطب الوجود لطي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء والبرزخ المخدوم عليا أقتى بالإله بلا ريب وترليم ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء سن الغيج سيخ سيخ تيجان الذي تدري سرائر من أين المسائل في إبس وتقسيم أتت بمجموع أسرار العجائب والخرائب الخر بخيات تقسيم يا من يروم بوصف كان منفردا والآل يغنيك عن توكيد تبريم ربي وآل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض Cheikh ne xutbaniyatul osma lay fii asamaan xam na ne mënul doxal xutbaniyatul osma. waaw de ndax malaaka yi ñu ñu gën a seetlu waaye. malaaka benn turu yàlla la mën a doxee mënul doxee juróom-ñeent fukki tur yëpp juróom-ñeent te loolu ku ko mënul mën a nekk xalifa yàlla moo tax ne nga dégg benn waaye bu jàngul feru di ci naan xutbaa ni amul ci alquran inni jaalu bi laa di xalifata xalifa moo xutb boo demee yi dafa liggéey téere lëmm andi xadis yi bi wane xutbaa ni fi mu taxaw moo tax am na benn waaye te nee tijaan la defoon na fi ay kaset waat billaay wallaay tallaahi xut bu amul labdaan amul najaras amul wax waxam ju ñaaw ngaa yow man leen dox na ci tariqa bi waaw tariqa bi du wir dëgg wasifa ak xadra yooyu ay lawazim la يجد البكاء هكذا يفعل الكتم ñu ne ko koo namm ci kër gi mu ne sama sëriñ ñu ne ko yow sa sëriñ ana ngi doogu borom ku dul cheikh kenn ko maktuum ndax moom cheikh ci boppam xamuloon xutbul maktuum lu muy firi xamu ko woon maamam moo ko ko wax bi mu ko ko waxee mu ne ko maa maanal maktuum di nga ci boole al xutbaan yi moom xam naa ndax soo demee ci jaar-jaaram bëri na wëli bi mu jaar suñ ne ko maam matara bu ko luy sa càkkutéef dafa naan al xutbaaniyatul uzma te cheikh firi na al xutbu ci Jawaahirul Maani nii bañ ko laajoo xut mu wax ne ko mooy koo xam ne fu yàlla nekk ràbban moom moo fa nekk di xalifaam moo tax fukki alam ak juróom-benn yi xam nga boo gisee jàng tubaab kon mooy seen alwa dafa gàtt te ñu foog ne ñoo fi raw Cheikh Ibrahima Sakho daf daan wax ne sama tubaab bi gën a mag ak nit yàlla ni mu leen ko mën a misaale mooy xale bu tuuti bi soo ko judd ak màggat mu daj wër àddina xam lu ne. xam nga tey tubaab ku ko nekkul 124000 monde am téeméeri junne am ak ñaar fukki junne ak ñeent ñoom monde bi rek neen xam te monde bi liñ ci xam bëriwul yàlla ko wax ci alquran rek neen xam ak bu ñu ci baatin bi yàlla te rek di xam te gis ñu nit yàlla yi bu ñu ne benn monde ñoom dañ ne àddina ak àllaaxira mooy benn monde waxuñu suñu suuf si rek. Euh, bi mu laajee maamam lan mooy xutbul maktub mu ne ko allazi katamoo laa anil xalaayiqi xayri mooy ki yàlla nëbb mbindeef yëpp ba mu des man yonent bi gis nga ba ci seen si Ahmed Tidiane yi moom xamul boppam wax na ne laa ko doon ne ci maamam maamam dafa wax ne sama borom xamuloo te loolu hadisul qudsi la bu limaamu suyuti def ci téere bu ñuy wax al qasaisul kubra xam nga sukkeeri ku bëggoon limaamu suyuti dafa tax mu may al qasaisul kubra moo tax ngeen gis ñu wax ne boo demee ci qasaisul kubra dañu wax ne laa yaarifu llaha illa allah jalla kama laa yaarifu lmustafa illa irmana yàlla kenn du xam yàlla ku dul yàlla moo tax même boo déggee al arif billahi day xamee ci yàlla moo tax arab du wax ne arifullahi ndax dafa am ñoo xam ne dañuy xamee ci téere am ñoo xam ne ci seen moroomu nit nen di xamee dégg muy waxtaan am ñu weesu foofu rek di xamee ci yàlla waaye yàlla moom kenn du ko xam laa yarifullaha illa allahu jàll kama jàll muy fii yàlla ëppante nag ñu ko mën mën ko xam kama laa yariful mustafa illahu waxuma yàlla nee na bàyyi naa yàlla yonent bi ci boppam ku dul yàlla mënuloo ko xam ci la yonent bi ne laa yaarifu ni xayru rabbi ku dul sama borom xamuma cheikh ne ku dul sama maam xamuloon ndax moom xamul boppam li la koy xamal mooy salatul fatih am na juróom-ñetti martaba waaw na al martabatu al zahiratu am na benn waaye te muqaddam la nee na ñaari martaba la ko kon yow doo mën a dem ah te bind na ay téere ah ci tarixa bi ci tubaab li gën a garaaw gars yi dañu jël léegi diine ji am na koo doon wax rajo dunia di firi alquran ci tubaab di wax lu ko neex al martabatu al batinatu martabatu batinin batina martabatu sirri ñëw ñeent yi ñoo am ci àddina ñun lu ci nit baax baax mënoo àgg ci martabatu sirri ci salatul fatiha martabatu zahira rek wala martabatul batina wala martabatu baatina baatina cheikh rek moo yëg ci maqaama martabatu sirri salaatul fatiha bi ngi soppeeku de mooy bi ngeen di jàng rek waaw lu tal sam du dara ngeen di jàng martaba yi ñu bokkul martaba mooy étage bi nga toll xam nga même nit buy wax ci zahir boo taxawee fii ci suuf di wax bokk la nga yëg benn étage di wax moo tax ñu bëgg booy nodd nga yëg fu kawe bokkul ak ku nekk ñaareelu étage di wax am na benn waay bu doon xaru fii ci grande mosquée ci soror bi ba mu yéegee ci sooroor bi ñu yebal motaar yi ñëw mu naxanteeg moo mu bañ bi mu cëppeeloo aw ren ko mbee ci jaww ji la dee ndax kay waaye sooroor bi noonu la nit ñi wuutee sa salaatul fatih bokkul ak sa salaatul fatih morom looloo indi martaba yi ñu bëri dañu foog ne ay maqsad la yooyu wuti naan allahumma inni nawaytu an ataqarraba ilayka bi salaatil fatih bi niyati martabati zaahirati du tax nga am ah déedéet am sëriñ mu yéegale ci martaba bi moo tax Baye Khalifa Niass su bëggaan yéegi nit ci martaba bi dafa am mbaar moo xam ne min mi la fa yóbbu boo fa jógee mën a def fukki junne salaatul fatih ak ñaar ci bis bi moo tax gars yi dañu foog ne affaire bi kese kese ne jàng arab du ko doxal ay martaba la yu ñu lay yégal ni nit di wutee maçon mu koy tabaxal étage nga soo ko def ci étage bi noonu ngay wutee sëriñ mu la ci yóbbu yas abu cheikh ana fukki junni ak ñaar boo wala doo liggéey day yàq sa loolu moo tax dañu la ciy jaarale ci ruq moo tax suñ seebatu ne dafa am bis ma ne si aj maa ne ko bëgg am tayu nooy def mu ne ko bëri saa su fatiha rek bu yàggee rek am lu xew. waaye jox ko lim. ah dëgg soxlawul dafa am ci barab yooyu dafa ne bu ngeen mënee def lu ëpp fukki junne ngeen dem dënku ko waaw waaye am sëriñ nag ndax nit ñi bokkuñu. am na benn waaye juróomi téeméer rek la doon def sëriñam ne ko yow loolu diis na ci yow ëpp na <laughs> sëriñ ak médecin ñoo yem ni ngeen gisee ñu naan xale bu toll ci at sàngam ba at sàngam genn wàllu niwaakin lay naan boo amee at sàngam benn doom ngay naan boo amee naar bu fekkee sibir bi tar na nga def nag tegle naanoo noonu la sëriñ mel boo yi mënuñu la defar mooy téere bi mënu la wax yow foo foo toll téere bi moom li mu mën a wax rek mooy nangam baax na nangam baax na waaye yow nag lan moo baax ci yow loolu nit njaay moo la koy wax moo tax yusluxu bil insaan maa laa yusluxu bil quraan alquran li muy nekk nekk waxu yàlla mënul defar doomu aadama déedéet foog nga am sëriñ moo tax yonent bi yàlla yónni ko su alquran mënoon defar nit yàlla du yónni yonent bi day wàcce alquran rek kenn ku nekk na nabi firil sa bopp waaye kon doo def arab saaba yi li ñuy nekk nekk arab léeg-léeg ay wàcc duñ ko mën a firi asalaatu bi ci gën a yomb di firi julli tey ci ñun ci cosaani arab daawul firi julli salaatu ñaan bu spécial lay firi waaw ku ne astuma salaata da ngeen taxawal ñaan bu spécial ndax da nga dem doo dem voilà kon nag arab dugg firi moo tax ku wax ne diine man nit mën na ko doxal te amul sëriñ kooku mooy bidaa bi gën a mag ci àddina mooy ñàkk topp suñu amul sëriñ yonent bi nee na mam maata mam maata walam yu bàyya faqat maata miitatan jaahiliyatan ku dund ba dee te mosuloo jaayanteeg nit yàlla nee deewi ni ceddo nga dee ah toppaloo ci kenn ceddo day rëy xam nga ceddo du topp ci kenn nit ki fokk nga nangu ne jamono bi nga nekk am na ñu la gën soo xasee nangu ne am na ku la gën faaw nga topp looloo andi yàlla bindee wu ñu ni mu bindee malaaka yi xam nga malaaka amul ndey amul bàyyi. su neexoon yàlla ñëpp doomu aadama yi cëppeelu kenn du am ndey ak baay mais toppante moo tax nga am ndey ak baay moo indi inna arat na lamaanata nag toppante su amul kilifteef du am bu kilifteef amul organisation du am nizaam bu amul dara du taxaw malaaka li muy sell sell mënul togg attaaya attaaya bii a yomb xam nga kon bu doon malaaka yi rek suuf si kon tey maññatofan yi di gis tey du am. moo tax yàlla nit rek mooy nekk xalifaam asamaan xam ne ne attanul xurbaniyatul uzma suuf li doomu aadama di jóge ci suuf yëpp suuf xam na ne attanu ko ndax doomu aadama li muy tuuti tuuti mboolem lu yàlla bind yan ci biir doomu aadama moo tax yàlla wax ne la xalqu samawaati wal ardi akbaru min xalqi naasi walakinna aksara naasi ñoom laa ya'lamuun giñ naa man yàlla moos ni bind asamaan ak suuf ñoo gën a jafe bind doomu aadama ak baru jafe lañ fi suñ ñu gën a rëy ci zaahir ñoo gën a rëy asamaan suuf ci baatin moo tax mu ne walakin aksara naas li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu ne ñoom ñoo ëpp asamaan suuf gis nga dafa asaf ma xamuñu ne nit li ko asamaan ak suuf di ëmb nii yëpp ci zaahir asamaan suuf benn xaaj la ci moom. moo tax boo amee sëriñ ba mu defar la da ngay mujj jël àddina teg ci sa loxo nii mu mel ni pepp boo teg nii mooy àgg nag nga mën ci def tasaruf nga mën ci jëfandiku toog fii di xeete nit ci Amérique loolu nag la nit sam pour mënul dégg loolu mooy xutbaanitul osma bi yàlla gaaral asamaan ak suuf te loolu képp ku mënul wutu yàlla ci mboolem turam yi doo ko man te ku dul doomu aadama benn tur rek ngay doxee xar benn tur lay doxee xam nga loolu gis ci àddina tur loo gis rek boo déggee almaarifati billaahi loolu moo ko laal loo gis rek xam ban yàlla ban tur yàlla may doxee looloo tax nga mën ko defar dafa am naar bu ñuy wax Cheikh Tahar xaadir woon gànnaar ba mu ñëwee ba Louga ci usine bi la taxaw rek dégg machine yi daw mu xam machine bu ne tur yàlla bu muy dawee mu joom mi mu ne machine nekk di tudd yàlla ay eh, machine bi ne xamuloo woon loolu mm-hmm. waaw xamuloo lu wax amul nit yàlla yi ñoo xam ne ni loo gis day wax te alxuraan ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi moo tax boo amul sëriñ doo firi alxuraan amul lu dul sàbbaal mu des nag ndax yow yaa ngi koy dégg wala wala dégloo nit yàlla yi nag dañuy àgg di ko dégg ñoom ma am na benn wëli dafa jël satalaam bëgg a dem ci wanag wi ba mu tuuree ndox bëgg a sew mu dégg ndox mi sàbbaal mu ne ruus naa dégg ndox mi sàbbaal ma ko sotti ci sobe loolu tax xutbaan ya diis boo ca àggee dootoo ñeme dara moo tax nga dégg ñu ne la ñoom bu ñu toogee ci nen du toj moo tax Cheikh ne loo firé aaya bi lu dul ak amaana mooy doomu aadama ñu ne ko léegi seen Cheikh am Tidiane li nga wax d'accord neen ci dégg nañ ne xutbaan yi ulama nen wax wa xamalaa yanu na ko l'insaan doomu aadama mu ne insaan bii waxuñu doomu aadama yëpp yéen ñi jàng grammaire al bi alu xaqiqi la dëgg dëgg doomu aadama mooy xutbu bi ku dul xutbu bi espèce u nit la si bu insaan rek nga nit pire mooy kii mën a remplacer yàlla ñu ne ko waaw d'accord mais léegi li ñu jaaxal li ci yàlla teg mooy ñàng dafa ne innahu kaana zalaman jahuulan te xutbu bi la wax ma ne bi nag lay wax man leen gis nga innahu kaana zalaman jahuulan moo firi inni kuntu mina zaalimiin boo ko xamul boo firee alquran def nga connerie boo firee hadis def nga xam nga am na fu mu wax ne laa tufaddiluni ala yunus ibn matte bu leen ci yonent yàlla Yunus ibn Matiya xam nga loolu wax la yonent bi moo gën mboolem mbindeef yi mu taxaw seppi yonent bi ñëw ak yonent yonent yàlla Yunus te loolu waxu ko ci benn yonentaan ah. yonent yi li ñu bëri bëri doo dajeeg bu mu wax bu mel noonu ak ah, léegi noo koy firee nag soo ko firee ci kaw génn nga ci lislaam ndax ku gëm ne yonent bi am na ku mu gën génn nga ci lislaam te moom moo ne bu leen ma gën a léegi yonent yàlla Yunus ibn Matiya fekk boobu rañaan bee tax muy junj yonent bi bi muy rañaan di yéeg dafa dajeeg benn malaaka bi wàcc mu ne ko foo jëm mu ne ko sama borom moo ma woo ca mu ne ko yàllaa ma ca kaw gannaaw asamaan te ñoom boobu mi ngi firiwaale nekk yonent yàlla yunus ni gaa moo tax ñu yóbbu ko ci biiru jën amul moom itam nekk rañaanam ci biir géej la ko defee nag la la koy dafa ne laa ilaha illa anta damir la ci arab boo xam ne lil xitaab ki ngay waxanteel mi ngi fi yonent yàlla yunus bi mu wax ni yonent bi jàkkaarloog yàlla ca kaw asamaan yi ni la jàkkaarloog moom ci biir jën wi akbar moo tax inni kuntu mina zaalimiin mooy innoo kaana zaluuman jahuulaa ñu ne ko nag Cheikh léegi loolu leen déggul nga bëgg am nga war ko mu ne waa boo gisee comme aadama foofu zaluman man ko firee tooñ mooy man doomu aadama jéggi na dooleem léegi génn na cadre doomu aadama dugg ci cadre yàlla ndax nit ku mën a toog fii di contrôler la xew asamaan ndax ma Omar radiyallahu anhu dafa daan wax ne mbedd asamaan ak mbedd suuf xaw ma ban laa ci gën a miin xam nga loolu loolu nit mënu ko moo tax inna woon ne ko xut bu jamono bi kaana mujj na bi mu yégee ci xutbaan yee ci loxo ma zaluman jéggi cadre mbindeef moo tax boo gëmul wilaaya rek bu ñu la ab yow xutbaan yi da nga naan ñooñu dañuy foofu waa ji ko doon weddi boole na ko sax nee na a fu gën a gën a foor araj fuuf lu bind rek nit a ko gën a gis nga malheureusement boo amul sëriñ boo ko waxee ci sa làmmiñ du tax nga gëm ko boo boo gisee bu ñuy wasifa du ñu jublu penk dañu wax ne xool xarkan mu jullit moo ëpp xool kaaba gi ne kon ka nit moo gën a foor kaaba gi ak màkkaayam yëpp nit ñi bi ñu koy firi nit yàlla dañ ko firi firi mu gàtt ñu ne kaaba gi li muy foor foor nag yàlla nit a ko liggéey nag wax bi gën a foor mooy malaaka yee ko njëkk liggéey nit nag yàlla ko liggéey ko ak nit ku gëm yàlla moo tax ku amul nit yàlla loo wax ci alquran foo la loo wax ci hadis foo la yonent bi nag ne bu leen wax mukk ne keroog bi ma rañaanee dem ci asamaan keroog laa gën a jege yàlla ci bu ma nekkee ci suuf wala bi yonte yàlla Yunus nekkee ci biir jën bi yàlla ngi ci fu ne loolu bokk na ci ay gën gaa yi gën a dale seedi si Ahmad Tijaani yàlla waxee ne ma ak mu yàlla ngi ànd ak yéen fu nekk te huwa damir la buy dellu ci jëmm ji mais borom xam-xam yi nga xam ne mosuñu ci pie yàlla bi ñoom mu ñemuñu firi aay bi dañu daal di arrière ne eh, yàllaa ngi fu nekk waaye ci xam-xamam la fa nekkee ah déedéet loolu moom doomu aadama yi am <laughs> yow mën nga nekk fii xam la nekk ci France bu dee yàlla xam-xamam rek la nekkee ci barab bu dee yàlla nekkagul yàlla yàlla dafa nekk xam-xamam nekk fa ak jëmmam nekk fa ak xudratoom nekk fa ak melo yëpp. Saaj Maalik ba mu koy firi ci Faamul Munkir nee na loolu kañ mi ngi ci suratul Waaqia yàlla ba mu ñuy wax ne falawlaa izaa balagatil hulquuma wa antum hiina'izin tanzuruun yàlla nee. ba muy daane aay bi dafa ne wa antum la tubsiruuna du ngeen gis mu ne baatu tubsiruuna mooy bët bii nekk ci bopp nit su fekkoon ne duñu ko gis nee na kon day du wax baatu tubsiruuna baatu tasiruna wala beneen baat lay employé nga xam ne kon dañ koy gis yàlla bërëb boo nekk la nekk problème bi tere nga gis ko mooy yow yaa àggul ci sell foo ko gisee moo tax boo demee àjjana ba sell mën a gis yàlla foofu jullit yëpp koy gis wali yi nag ñoom fii yéen koy njëkkante moo tax ku amul sëriñ aaya boo firi rek mu nekk erreur ci yow moo tax gars yi dañu werante ndax tasawuf am sëriñ bokk ci tariqa fardu ay ni la wala fardu kifaaya la ndax xam nga ñu bëri dañu foog ne wut sëriñ pour naxante la déedéet xanaa wax sëriñ ñi caaxaan waaye bu dee sëriñ piir yow sa njëriñu bopp rek moo tax sëñ maajoor mu neex mi ndeysaan bés mu ne eh, yéen intellectuel ngeen gars yi ne waaw mu ne leen boo feebaree mu nekk kooma ñu yóbbu la kooma mooy nga xam ba xamatoo koo nekk ñu yóbbu la saalu réanimation wo jag la ne la bul yëngatu mu ne médecin bi dafa la bëgg a jëriñoo wala dafa la bëgg a jëriñ ah ñu ne waaw bi sëriñ bi it ñu la waxee ne taalibi day nekk ci kanamu sëriñam ni néew ci kanam yi ki koy sang waaye waaye bëgg mu defoor rek du caageen pour dañu bëgg a jëriñoo taalibe bi ndax sëriñ bu mat sëriñ soxlawul taalibe koo gis muy xëccoo taalibe du sëriñ waaw ku am yàlla waxuma am yàlla sax waaye xam mu téere boo ci màndee fóore bu ñu wax Muhammad ibnul Hasan boo demee ci taalimul mutaallim nee na su ma moo mooon mboole mbindee fi ñu nekk sama jaam dama leen di goreel ndax ma am jàmm mu am jot yi mën a yër samay téere ndax yilif nit ñi da lay rek boo leen soxlawul ñoom dañ la soxla fu ñu toll di la diis ay soxla di la waxtaanal te yow talu loolu yaa ngi bëgg yor sa kurus yaa ngi bëgg say nga àgg ci maqaama yàlla wax ngay dégg am nga ñu bëri dañu foog ne yonent yàlla Moussa rek la yàlla waxal mu dégg déedéet ndaa de yonent bi yàlla wax na moom wax bu gën a fort bi mu wax tax nga dégg si aj wax ko ci taysiir bi ne yonent bi wax bu gaaw ne du foofu rek la mos a waxee moom mais boo gisee ñu wax ko boobu bon beneen affaire la mosu ko wax benn mbindeef moo tax Cheikh ne innahu kaana zaluman jahuula boobu xutbu bi nekkatul doomu aadama nekk na doomu aadama nii toog nii waaye nekkul nit ndax nit ku am ñetti téeméer jëmm ak juróom-benn fukk te fi nga toog man nga tàll sa loxo mu laal Amérique te yaa ngi toog nit ñi lekk ceeb di naan di waxtaan ami soxna comme nit ñi ma tax saaraan yi ne ñett gën a gaaw a yàqale ci wëliyu mooy doom ji jabar ji bëkk néeg bi ndax ñoom li ñu gis ci sëñ bi mooy añ reer léeg-léeg mu nelaw sax bu xaram far xam nga loolu bu la yàlla dimbalewul da nga kii daal kii dina la ba xaram ñu naan lu xew mu ci loxoom lay jaar te xam nga xut bu jamono lu xew ci loxoom lay jaar ba ci wax bii may wax pour mu dem ci seen nopp su dee ci xam-xamu tubaab dañ naan la ngelaw li moo ko yóbbu ci sa nopp waaw mais mais ngelaw li lan moo ko jeñ <laughs> foofu la ci wax de ah ngelaw li ah ngelaw moo te dama ngelaw jamaat la oto bi su demee rek dañ ko puus waaw nit rek la yàlla may mu mën a jógal boppam wala jinne waaye jamaat yi di nga xam ne chose nit ñu yëngatu yooyu ñoom bu ñu demee rek dafa am leen puus ngelaw li lan moo ko jeñ lan moo ko yóbbu ci xole waaj ma tax xutbaan yëpp nit ku xamul yàlla mënu ko dégg loolu moo indi problème mu ñiy weddi wilaaya te soo weddee wilaaya weddi nga alquran ndax jigéen du nekk yonent mukk te yàlla wax ci alquran soxna Mariam waliyu la non seulement waliyu la kullama daxala alayha zakariya ul mihraba wajada andaha rizqa heure bu kilifaam di jëkkëru tàntaam di yonent boole ci yonent yàlla Zakariya duggee ci fi ñu ko jenc ci jàkka ji dana fa fekk wërsëg woo xam ne gis nga nakira boobu ci bayan ten kiiroo xaraaba la nakira la wërsëg woo xam ne amul ci dëkk bi risqan gariba looloo tax mu yéemu ne su bu fekkoon li ñuy lekk ku ñëw Sénégal fekk waa yor jee bu jëndoo yéew da ngay jàpp ci dépense kër gi rek mais soo toogee fii Sénégal gis waa ji mu yor loo xam ne amul Sénégal da nga ko saa yi koo ko loolu tax mu ne ko année eh, la kii haasa foo jëlee lii yow Mariam te moom moom Zakaria yonent la kii du yonent mu ne ko yàlla moo ma ko jox fan la ko jëlee bu turandoo jula bu mag la woon ci a ëppoon xaalis ci Sénégal la ko. sëñ Habib nee na ma heure bu Chérif ñëwaat Sénégal su Seex Aj Maalik dajale taalibe yi ba ñu dajalee hadiya yi yëpp ba mu mat foog mu yebal ko ca moom te moom rek bu joxee mooy ëppale Sénégal yëpp li ñu joxe Seex Aj Maalik xëy na ko da ngay bàyyi liggéey li gëm-gëm keroog sikki sàkk na waaw ci sëriñ bu mag yor kër gu toll ni ñay silmaxa yeeg lafeñ yeeg yëpp ci moom nen di ñëw muy faj Sénégal jege sëñ Aliou ngeen am Abdou Abdou Karimun asluhu Karimu li kulli zamanin xaatimun yaqsuduhu xaatimu hada dahri moo di am Kan xaatim arab yi dañuy wax xaatimul juud mooy ki tabe woon ba dem barzaq te yéeféer na de ji ñëw ziar ko ci bàmmeel bi xaatim ne ko sama gileem gi jëkkër ga boo demee nga ko ñu ganale la ginnaaw bi mu faatu kooku la sëñ Aliou Guèye nuru léegi moom ne li kulli zamanin xaatimun yaqsuduunu wa xaatimu hada dëhri moo ne abduka mu xëy ne ko da ngay bàyyi liggéey fi mu toog ci boutique bi jula bu mag la woon xam nga sama turandoo dëkkul Kaolack mi ngi dëkk Fuuta mooy seen cosaan ñi sant kan ñoo njëkk a nekk almaami ca Fuuta góor gi Abdu Xaadir kan moom ak Cheikh Omar baayam ummi wan kan ndar la dëkkoon moo nekkoon njaatige Cheikh Omar ca ndar moo tax mu ne Abdou kërimun ba noppi asluhu kërimun jagg na mais cosaanam dafa tedd Cheikh Omar bi muy rëdd jumaay ndar ji mi ngi dal ci sàmb ummi wan kan sàmb ummi wan kan fóore bu mag la woon dafa demoon gànnaar jàngi ba takk ba naaru gànnaar tukulóor yi ne génn na xeet waaw ko indi ndar moom mu jógee ndar moom sama turandoo tëngeej gi la njëkk xam ci Kaolack bés la romb benn tanikat tanikat bi ne waa ji romb de Kaolack lay mujj mu ne mën a fen ba dee man dama ko teni loo continuer di jula ba dem Foundiougne Foundiougne la njëkk nekk ci Kaolack Foundiougne la jóge ñëw Kaolack mu bàyyiloo ko liggéey mu toog ci boutique bi di nelaw ñu commencé ko jàngal lawhul mahfuz benn waaye yee ko ne jaay ma te dërsi bi àggul la ilaha illallah lii moo tax si bàyyi njaay daal di wanteer si toog mu des nag mooy naan la yore kër gi bu toogee rek nekk si ajmaa li mooy jóge ci waawoon ñëw andil ko dépense am waa ci waawoon du ñu yëpp ba bés si aj Malick tardé soxna si ñëw ne ko jox ma dépense mu ne ko nga xaar ba borom kër gi ñëw mu nekku ko kër gi dafa am beneen borom kër bu dul yow ko nga ko xam bis ni ki tey bu ñëwee jox ma danaa la jox ñu toogee ba 11h si aj Malick ak si jox ko dem mu woo ko ne ko kër gi ñëw na ba dem keroog la waa Kaolack soo ko xam ne si aj Malick moo ko jox dépense loolu aw aw ah, ah, du fi jot boo demee ci mu neetul murid cheikh maamam moo ne ko hada ata una bam nun awagum sig bi xay xisaabin aaya bi yàlla waxoon yonent yàlla Suleymaan yàlla wax na la ko toogee nga maqaamu bi <laughs> maqaamu boobu soo ko toogee dootoo jeexal addina yëpp bu ñu ñëwoon moo tax cheikh nit ñi dañu mujjoon foog ne dafay tëb ji waaw ñi koy ŋàññi loolu leen di wax dañ daan cheikh dafa daan soppi xaalis <laughs> soo demee ci jinaayatul muntasib al ani bu Seydi Sukiri nee na ñooñu xamuñu dara tabdil ilmu naar xam-xamu safara la tabdil ku ko def boo dee dem safara ndax jinne mënul liggéey xaalis mënul togg attaaya xam naa leen malaaka sax mënu ko wax mala jinne moo nga dégg ku xër ci sëriñam ne ngeen ne waxul dëgg waaw jibril amul joti attaayal yonent bi waxuma di attaayal maa day taal Sénégal rek la nit ñeme toog di fen kenn du ci waxtaan lu caaxaan Sénégal fen rek bu ngeen seetaanee télé bi fan yii rek da ngeen xam ne Sénégal tas am na ku financé aj Malick wax boo xam ne mais bu jotee man dana ci tontu ak ci tontu Sénégal réew la moo xam ne mooy yées ci réew yi gis nga bu dee gànnaar loo rëy rëy kaala ami taalibe boo fenee benn waaye bu mel noonu taxaw fenee maa wax xaqan du benn dëgg ah. ngeen joonante joxante ay direct ba mu tàng kenn du atte nga continuer sa conférence waaw loolu mooy dëgg ku fenn dañ la war a wax ne da ngay fenn ku gëm ne Jibril dana attaayal nit génn nga ci lislaam mooy xamuloo lan mooy malaaka pour nga gëm yàlla foog nga gëm malaaka pour nga gëm malaaka waxuñu gëm ne am na da ngay gëm ne aj sa mun nuuraaniyatun amuñu benn soxla bu dul jaamu yàlla malaaka du lekk doon naan ku mosul lekk mënu soof naan nu muy toggee attaque nan lay xamee ne soof na suukar waxi caaxaan yooyu dañu ko bàyyi loolu moo tax tijaan rek moo fi dundal sunna moo tax soo demee ci sartu tariqa bi luzumuhu shar'a bi kulli xaal yi moo tax man bu ma gisee ku may jaay sunna damay reetaan ndax yow bu ma wóoree ma boo ñëwee bu ma la joxee xadis doo ko firi suñu la joxee laay doo ko firi bu jàkk yi jotee maa la ci man ah nga may jaay suñu dara yàlla te loolu ci seex rek moo tax ñu am ko. ah charte tariqa bi daf ci bokk ñuy julli jàkk ja daf ci bokk looy def yow nga am foo ko teg moo tax ñu ne tariqa bi du tar du tariqa jaay fokk nga xam charia bi du mu wax te loolu ci tariqa seex rek la am nag amul benn tariqa booy fekk ñu ne la charte la. au boo yéexee sax ñenn ñi ni ñu lay firile seen tariqa mën na tax ngay sëgg ci mooy yàlla ah am na wali yu fiix yoo xam man kañ ku ma liggéeyal sàlla moom àjjana rek ku ma liggéeyal ah waaw loolu boo ko waxee koonu mi nag muy njaaloo dinañ sàngara te liggéeyam la te fekk du noonu dafa am sart yow wali bi loo bëri bëri doole yàlla la yit waaw yàlla yit wali de te yàlla garantie bu mu la wax kontul ma ko leen bu léegi tey hmm? waaw yàlla waxam kontul yàlla waxam jàpp ko balaa nga nekk jullit foog nga gëm na yàlla waxam jàpp ko loolu mooy lan su neexoon nga fanaane julli di woor mosuloo mooy yàlla nga dee mu yóbbu la safara Cheikh Hadj Malick nee na li ma jaamu yàlla yëpp xam naa ne bu ma yóbboo safara tooñu ma gars yi ne ma Cheikh Hadj Malick li mu wax garaaw ma neex na fii kat ganaar gi nga jënd fii fan nga amee droit rendi ko lu mu la def yaa bind ganaar yàlla bind jaam bi nga ne ma droit lakk ko xanaa kon yàlla tuddul yàlla. allahu akbar yonent bi nee na yàlla am ci alquran la adri ma yufalu bi wala bikum man yonent bi xaw ma nu yàlla jëflanteeg man. kon keneen jarul wax yooyu ay waxu caaxaan bi gis nga moo tax cheikh rek moo tege ci raay bi normal moo tax dañuy fay ba mu des tariqa cheikh nag maamam moo te toll nañ ci gis nga bëri na Quran la ci tariqa sangam laa aju boo ko laajee wirdu tariqa bi la ko wax. te tarixa bu amul wird du tarixa da gis ku ne man nangam laa fekk gënd ba tax mu ko nga gënd des na ci nekkee taalibi nangam tabala kenn na ko nekkee taalibi nangam tarixa xaadiriya dafa am wird boo xam ne moo gën a suñ bos bi fuuf te ñiy wax de xaadir neen ñu ko kon du ñuy xaadir ay sympathisant neen sympathisant bëgg naa bokkul ak bokk naa moo tax tarixa Cheikh rek mooy dox fi ñu toog maamam ko waxoon sa tariqa bi dana folli mbooleem tariqa yi loolu moom jarul xuloo ñëpp ci teg seen bët loolu moo tax mu ne ko woon wa awliyaullahi yadxuluuna zumratana bil wirdi yaxuzuuna xatta al imaami al alami al mahdi yi fi aaxiri fi aaxiri al azminati al maati yi ba ci limaamu mahdi bi ngeen dégg ne dana ñëw ñëwagul de Sénégal rek la nit ñeme toog di wax dana ñëw. ñëw na amul. mahdi yu kenn du ko jaawale Cheikh Hadj Malick nee na wa man yadda'i mahdiyata li'tiraarihi li jahlin wa xumqin jaalibun li shaqaa'i koo dégg mu woote mahdi yu du mahdi yu mahdi yu kenn du ko wootee ndax mahdi yu amul laajte moom jant bi ñoo yem jant bi du wax mun maay jant bi hmm. day génn tàng jër ñëpp de ah jant bi tey tàng na de kese mahdi bu ñëwee day rey ay président rey ay sëriñ rey ay ustaas kooku kenn du ko laajte. mukk gisagu leen fii mukk ku ñuy wax Mahdi mu rey nit Mahdi bu ñëwee rey président Mali ba jëm ci Sénégal di ko waaj rey si ñu bëgg ko téléphoné courant coupé waaw kenn du téléphoné kenn benn waaye dañoo ànd ndeysaan xaal bi yaram bi tàng jër tijaan faatu na ñu ànd ci benn kilifa mu waxtaan ci mbiru Mahdi lu yàgg ñu génn mu ne ma sa góor gi yàq na sama waaye waxuñu turu baatin waaye biñ koy ngéntee leen la wax bi ñu koy ngéntee waxuñu baatin baayam Abdoulahi lay tudd yaayam Amina lay tudd sëtu yonent bi lay doon ci ak baay tànk baay bi Seydina Xasan mooy nekk maamam tànk ndey ji Seydina Xuseyn mooy nekk maamam man li leer na ñu ñu footoo nga xëy ko am ni ñu xam waaye ñu bu la too neexee ne yow yaay mën li lay xamal ne amul mooy ñi nga gis ñu wax fi Mahdi seen turandoo mu ñëw ñëkk woote moo tax ñoom du ñu nangu wax kooku kan mooy turandoo waaw ah limaamu du tur neen wax dëgg nañ wax nu ma tudd ak kuñ ko tuddee waaw ko tuddee moo njëkk a woote Mahdi kon ñoom ñaar kan moo ci wax dëgg turandoo ba nee la nee na ma Mahdi la <laughs> du dëgg amul non ëpp la ko waa ma àndal nee na Mahdi la ki ma leen di wax weeru koor yaram mi tàng jër keroog te waa ji ci dëggam de dafa nekk ci xaal ba nga xam ne mënul dox ci sama mbagg mii la jàppandu moom te li ma xamal ne xaal bi dëgg la man keroog dem naa ba fàttali dama war keroog tuuti ma juum ñu dox loppi kilomètre sama mbagg mi la jàpp ma ne sa waay doo maydi yow mu mere ma ma ne ko ma ne ko ma bàtti waaye maydi yu ma xaw ma lu ma réere waaye loolu bokk ci moom <laughs> képp ku woote ne yu si aj Malick ne du dëgg teg ñeenti mbir daje na ci yow wa man yedee mahdiyatan li'tiraar yaa ngi nax sa bopp jinne yi ñoo la koy layal ma diyu li jëlin amuloo xam-xam boo jàngoon téere yi da nga ne melokaan yi mu wax ci ma yu mooy dajee ci nit mu soog a wax la dégg naa ci dunia a waa ji ne ci sóoratu laqaaf laqaaf bi nee na ci la bëgg a génne mahdi yu nee na ndaal laqaaf laqaaf bi juróom benn fukki aaya la juróom benn te nee na sëriñam yaa ñaata nit a dund benn fukki ak juróom benn foog nga noonu indi fi alxuraan nee na Laqab ay tund la la lay fii te Dakar ay tund la fi nekk est-ce que Dakar ak ay tund. Hmm. ah waaw mais non non duñ ko firee alquran. alquran yonent ne ku ko firee sa xalaat wutal bam toog safara. waxuma nag koo xam ne tubaab nga jàng dem ci yaxe alquran bi di ko fireen waa dem na sax ba ne nee na aaya boo jël boo ko pittir ñee mu nekk wolof. Eh. déglu ko ci rajo bi am na jaay yu mu ci tudd ah nee na xam waaw. inna allazi la raaduka ila maadin nee na la raaduka boobu am anam yu bëri ñu num ñëwee ci wolof nee na mën na firi Dakar sax nee na la raaduka eh? a ah, nee na da dem la raaduka kaaf moo mujj ko Dakar dee bi jibu nan ko def ba muy day jaxase arab yi nu mu ko du wolof gis nga yàlla yeneen ci boo xam ne alxuraan lépp lu nar a ñëw yàlla teeloon na xam nekk dana am saay saay yu ji mu falsifié alxuraan mu teel a wax ne alxuraan ji quraanin arabiyyan la du anglais du allemand du wolof lu ñu lay alxuraan yi juutal muy firi wolof soxla wuñ arab bi ñu soxla ñun ci la ko yàlla wàcce bu doon wolof kay na ko wàcce ci wolof li gën a ñu ne ka nekkoon màkk moo ñëwaat fii ñuul loolu ku ko ci lislaam waaw nit mënul dee ba noppi dekkiwaat judduwaat ci góor ak jigéen dégg leen baax li ma nit mën na dee dekki am na ci alxuraan Uzeyru dee na téeméeraat yàlla dekkal ko waaye ñëwaatul ci neeg baay de ñëwaatul ci ndey ak baay waaye judduwaat fii ñu naan diw mooy sa baay diw mooy sa yaay loolu mënul am li lay xamal ni mënul am su fekkee yonent ba nekkoon Makka di Muhammad ibn Abdullahi moo juddoowaat Sénégal ruux bi benn bis pénc bu yàlla atte ku muy atte ci ñoom ñaar a ah, wax leen ñu ko ku wax loolu wax nga ne yàlla bon amul matériel yu doy te waa ji kat misaal bu saltali ko misaal nee na ndem mécanicien moo jël moteur oto dugal ko ci beneen oto nee na kon mécanicien bi dafa amul matériel bu doy moo dama ni ko de muy ma tëgg yàlla nee na fala tadribu lillahi lamsaara man munu leen ma tëggal ay exemple nit tuuti na ci xam yàlla ndax yàlla lay sa misli shay koo xamul nan ngay waxee na diw ak diw ñoo nuroo nga jël yàlla